yéen lañ jox faar bi de def leen leen neex <laughs> mais yéen lañ jox faar bi Jivi, Jivi, ayo hit Et eh, eh oui, la foire internationale de Dakar, c'est 50 ans. Dans la vie, la directeur général, pour Ladies and gentlemen, your attention please. Under the honorary presidency of His Excellency the Basil Jamaijahake, President of the Republic of Senegal, Mr. Seven Gejo, Minister of the Industry and Trade, Mr. Ali Furuba, Chairman of the Board of Directors, Mr. Justin Korea, General Manager of CSET, and all the staff of CSIS kindly invite you to honor your presence at the official opening ceremony of the 32nd Dakar National Trade Fair. Mais yéen ren ren yéen lañ jox CCS de. yéen lañ jox CCS ren nu ngeen ko gisee. ah. ci rek ak. bu baax mais ak ñaan ak ñaan xëccoo. amul affaire bi amul woon mais amul naka cookay parce que. <laughs> mais nan ngeen def ba Ciss ñu teg ko seen loxo ren. <laughs> waaw Pama ak Zébès defe naa. ah, ah yéen Zébès ak moom. voilà Pama rek. mais léegi yow ah. léegi mais lan ma lan mais mais lan mooy secret ba ñu teg ba ñu teg Ciss seen loxo ren te xam nga ne Ciss kilifa yu bëri. bëgg nañ ñu ngi ko doon yóotu ren léegi ngeen gagné projet bi projet bi léegi vraiment <laughs> il faut il faut tamit <laughs> mu wax benn moo boo xamante ne moo xam nga kenn xam ko si wax kenn xam ko si def moom si suuf lay def <laughs> léegi vraiment il faut il faut nga wax ñu lan lan mooy sa secret parce que kilifa yu bëri doon nañ xëccoo si ses léegi

eh kon de tal ah man moom wax mom li nga ko def wax moom li nga ko def de wax moom li ko def Thank you. mais mais ñan ñoo diviser TFM mooy diviser wala Sen TV loolu rek laa bëgg utilise boobu laa bëggoon mais ji bi ñan ñoo diviser ah RTS xala RTS waaw mooy diviser kan mooy diviser ku dul RTS non non non non wala télévision nationale mooy diviser sëndalay gaay non astafurlah deux heures. <laughs> damay jàpp sa day de. loolu la dugg dégg nga xool looy dégg bu dugal samay saaga. mais taxi bi taxi bi taxi bi kan ma ko gaare ah, ah. man moom ku ma mere ku ma mere yaay sonn rek <laughs> parce que. artiste bu mag bi ti artiste bu mag bi eh, eh, bi taxi bi gis naa ko <laughs> am oto am na ñoo xamante ne taxi la gaare <laughs> o oh. <laughs> ku ma mere yaay dee